sangu belal bi delsi nañ daaru de sal yéene ndaw kom ñu fopp ñu ñi xaar ñi ndaw ba ñu bayee ñeneen ñi bañ tar del ñu yéen ci ñun boo dem di jaalu la ay xol bi ñen la nga faqat billaay ci ñun boo dem di jaalu la yéen ñu dëgg man lu ma wax la melaw bind moom fa def kenn doroy melaw yoneen bi nekkul di njool bi sut rab xaatur la sewul ni rek rey li kim ko bind la ko jag fi kañ tafaase jag sa xol ja sayku ndaw ku yaatu ay jànqaay niir yoneen bi moo ci jëlee jikkoy si ndiix yi jëlee fi naafiq ak yeneen yu soof yi kooku moo ñu ubbil xol yi jubante yi jox ñi yeneen xolob yu dàq melo yi baabu nee na moo ko digal wirdu digal ko yiis bu barke ba maas ko yàlla far ko jas moo ko defal ijaasa wa ko Mansoor doomam di parti yàlla nekk Maxfoor xaaris loon waajamoon karaama samsu sa baay nee na sey ko ndaw xaaris loon waajamoon karaama wër na waajamal bi laama fa mu toogoon fa daara yi ba soxna la yàlla def naanu doomi soxna yi helantoon yàlla bawoon fi Mansoor helantoon yàlla bawoon fi Mansoor ndax ku juddoo te rek dikkeenu ndey joor bilaay jox leen ñu la seer joxoon Muhammadu xaali maa lu ko mel ta nga yënga yël faale ku sopp Seydina Jamar Ndaw defal ni ñu màggal ko way helantoon yàlla moon fi Mansoor ndax ku juddoo te rek dikkeenu ndey joor Dior jox leen li nga seex joxoon Mouhamadou Xaali mbaal na ko mel te na yéen faale ñun ñi nga ànd ak kuréeli waji laayi bu def si ñun yaakaar di jëf li way ñaanal leen ñi bur yàlla ñoo ñu am kaboola barke am ajal maam gaa yi amul sëriñ ku dul yónneen bi yaay seen imaam ajaban li rabbi seen maam demul ci bàyyi kenn nan ko aslamtu kii na bee ko yar lii duul fa lemtu demal nga yar ya waaxitul faraayidi wala baab daka mina sawaayidi yaa wuutu fii uwaysu ak moorof tey foor ak tiili nekk ma foofoo baabu nee mooy ku talal xasaali yow hasan moo hutu tey xaadim di yaa di saamin koo mën a am jëlal waraa ubaali sayid Omar Ndaw moo ma gënal koo faale moo ma gënal ñu jiitoo ak ñi di ak ñi ñëw ko weddi nag ma seet moo leen gënal yéen bu ngeen ko seetloo ndem rëyul leen xañaanu leen ngeen teylu ràbb jotoon na réew mi xiif ak rab leen jaaxle ngëm njaboot gi lii doon a soxla moo tax sa bay ku naa bi tey ma ko taas moo fi xutu seex ma ca faas ñun ñooñam ñi am nañ santra si leen Serigne Omar boo gisee Omar Malakoot Babacar boo gisee Omar Malakoot li ko buur bi denk ci mbóot doo ko teg ko jum naa soot yàlla may na sëñ Omar kooku doonte mujj doonte moo mujj ko si gën ndax li jaar yi tuul ci kenn ku ña moom dégguñ koo fi fenn fenn fenn del nesiru sa bàyyi nee na la yàlla def ku mu neex ku mu neexul xada la yàlla def ku mu neex ويكم نيخل قد أمره قل في سابق الهلم دون سنف وتغيره بابنا ndaw ko daa bi tay ko taas moo fi wuutu seex ma ca faas ne ñun ñooñoon ñi am nañ saas raasi leen sëriñ Omar waaye boo gisee Omar ma la koot li ka bur bi ci mboot waaye doo ko teg naa soot yàlla may na sëñ Omar yaa muriidu ndaw fas tamiyaan taa nga déglu kon da nga xam doo nga yaag sëriñ bi na nga nga ngeen ci Seex Omar moo tax mu Ba seedeel na Omar sax Seydi Ba Ba seedeel na ma sax moo di doon li jësële yàlla jox ma lis bu sax yal na yàlla may dër Seydi Bas di jàll bu wér ba mu ne lab daal la lu wóor xaw ma léegi lum da ci góor war na weesu del ni sirop moo tax ma ne xaret ba dar pënd ba fa nekkoon yàlla fël si waaye sorox ñi ñun fa ñam ngërëmal bàyyi man